internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar mi ak ci bitim réew. seneinfo.net Internaute de seneinfo.net et seneinfo international, bonjour, résumé de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. D'abord, l'actualité nationale. À l'occasion du Maulid 2022 qui sera célébré au soir du samedi octobre, le président Macky Sall uh, a effectué ce jeudi octobre une visite à uh, Tiwawan. Le chef de l'État était accompagné d'une forte délégation dont le ministre de l'Intérieur sur place, Macky a rappelé les travaux effectués par l'État à uh, Tiwawan et a promis que le gouvernement va continuer à œuvrer dans ce sens. L'ancien ministre des Sports El Hadji Daouda Faye dit Baba est décédé mercredi soir à Dakar à l'âge de 78 ans des suites d'une maladie. Le défunt fut également maire de Kaolack et député à l'Assemblée nationale, mais aussi vice-président du Sénat. La cérémonie de levée du corps à la mosquée Rawane Mbaye de Mermoz, dans la capitale sénégalaise, avant son inhumation au cimetière musulman de Yoff. En Afrique, au octobre 2022, les le Niger depuis juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 192 morts et plus de 263 000 sinistrés aux la saison des pluies de cette année, une de l'histoire de ce climat habituellement sec. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur de course vendredi au Burkina Faso, qui a vécu deux coups d'État en huit mois, a officiellement été désigné mercredi président du Burkina Faso dans l'attente de la désignation d'un président de la transition par des assises nationales. Sur l'international, au moins 82 personnes ont été tuées depuis vendredi 30 septembre dans des manifestations qui a à Zardan, la province du Sistan, Baloutchistan, dans le Ce jeudi en Thaïlande, un ancien officier de police a tué au moins enfants et adultes lors d'une attaque à l'arme à feu et au couteau qui a débuté dans une garderie. Selon les autorités, l'assaillant a fui la garderie après avoir perpétré son forfait, puis il est rentré chez lui où il a tué sa femme et leur enfant avant de se donner la mort. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.